أغلى wa sahlan nana la yéen a kaay yi xëye fekk leen ma si réew mi quotidien moom mi xëy si xeex ba am ca diiwaanu Casamance ba xolam sadd ubbil yéen a kaay bi yéen a kaay di ñu xamal nañu robeelu Salif Sadio yi ak soldaaru Sénégal yi yéen a kaay bi di ñu xamal nañu tiit ma ngay waaj a jot de aha maa bi ñu am nag jamono ji tiit lu na lool lu tolloog si juróom benn téeméeri doomu aadama jamono ji moom déplacé nañ leen lu tolloog si fanweeri ecole jamono ji moom tëj nañ ko foofu nga xam ne moom moo di sa diiwaanu Casamance te itam soldaar yi am na ñuy commencé ñàkk seen bakkan lu tolloog ci fukki fan rek am na si ñaari soldaar yoo xam ne si wàcc nañ maanaam daanu nañ bu nekkee ñu paree si Salif Sadio am na si ñeenti soldaar yoo xam ne si moom gars yi rey nañu leen diir bi nee na kaay tëll ma ne la kay soldaaru sénégalais ña ngay def seen kémtulaay kàttan foofu nga xam ne moom moo di sa kaasa Casamance de jamono jii kay mën nañoo wax dañoo ndar képp Salif saajo wër nañ ko ndoom ba fépp yéen bi biral daan na bëri na ci ay village yoo xam ne ña ngay déplacé de donte nag Sénégal am na ci ñaari soldaar yoo xam ne si génn àdduna waaye jamono ji ñoo jiitu de ñoo nekk sa kanam ñoo teg soog ki nga xam ne moom moo di Salif Sadio kii rabeelam jamono ji nag am na si ay village yoo xam ne ña ngay tàkk seen dëbës di dugg réewum gàmmi ngir mucc si xeex bi su ay yéen a kaay tëll daan na njiit réew mi Macky Sall kay jiboo la waa Benno Bokk Yaakaar loolee doy na ko sëkk mbu bëgg tubay jamono ji kay ma ngay sol dàllam di dugg ci kër gu nekk mu a fa naam dara me ngir daal di rataxal seenub diggante ndax defet bu mag bi ñu am si élection yi loolu lay bañ mu topp ko si législative Samba Ndiobène Ka ak Aly Ngouille diwaanu Jolof ña ngi leen doon jiboole ministre bii moom la Macky Sall yóbbu woon foofee nga xam ne moom moo di sa diwaanu Jolof ngir mu jiboole leen yéen a kaay bi biral daan na juboo géegee mujjul la xuloo bu saf-saf moom daanaka yéen bi dikk si defet bu mag bi nga xam ne moom la ñu am si élection locale yi ñoom ñi nga xam ne ñoo faree foofee sa diwaanu Jolof ñàkk ànd dong moom moo leen ko xañ waaye bu ñu àndoon commune yi bëri dinañ ko teg teg loxo foofu sa diwaanu Jolof Mamadou Talla mi doon séq ak ñoom waxtaan wa nag moom jéem na ba sonn de def na lu mu mën waaye nag kaay ma wax la ak juboo ma mujjul am seen diggante ñoom ñaar kay dañu ne gis la ñu mujjee teg ci loxoy Mamadou Talla ngir bu ñëwee mu yokk njiit réew mi Macky Sall moom moo di ñoom ñaar ñoo ñëwee mënatuñoo jaaroob taal maanaam dëngoon nañu ba faaw ñoom ñaar kay kenn ku nekk na jaar gauche keneen ke sa des jaar droite mënuñoo ànd mukk naan dañuy liggéeyal APR critique yéen a kaay tëll daan na maa la ko wax de benn bokk yaakaar kay jamono ji moom gaay gën a jege sax ka dañuy jéem a ànd élection législative yi nga xam ne moom la ñuy dëgmal loolee sax taxul ñu ànd de aha maa la ko wax njiit réew mi Macky Sall nag jamono ji ma ngay def kéemtulaay kàttanam pour boole njabootam waaye gars yi si boppam ñoo am ñu dëgër bopp ca diwaanu Linguère moom Aly Ngouille ci boppam am na lu ko doy li nga xam ne moom moo di mbubëg tubay de coowal suuf ci boppam la ñu gàdd si ndoddam lan maa la ko wax de ma ne la koy jamono ji kay tàq na ripp ak suuf benn promoteur immobilier si boppam moom la ñu wax ne moom la ñu jox suuf soo xam si nañ ko ko joxee jaaduwul te jaarul yoon te Aly Ngouille Ndiaye daanaka moo tëgg match bi lépp lépp loxoomam mi ngi si biir l'info yéen a kaay tëll daa di bind ba xolam sedd si suñu économique bi nga xam ne mooy waaj àgg terre maanaam mooy wàcc ubbil yéen a kaay bi yéen a kaay bi bind na ci ba xolam sedd yéen a kaay bi biral daan na waa FMI si boppam jamono jii de kenn xamul ana ban tànk la ñu taxawee si seen digganteeg Sénégal jamono jii meeru ñu tamit kontaan nañu ci biir réew bu Sénégal waa FMI ña ngay artu na nag nañu bàyyi xel ne koom-koom amul kenn koo xam ne sii rek jooyoo loolu le nee na jamono jii kay góombuy xasan la fépp lañ koy wokkee Sénégal nag na waajal boppam lool ci wàllu koom-koom buy wàcc sidd ko di jee yéen a kaay tëll dikk ak ñun sélection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ubbil yéen a kaay nee na coow la ma ngay am ci biir yeewu askan wi de gannaaw nag ba ñu bëggee jël ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall samb ko mu nekk seen tête de am na ay giita ngaas yu ndaw yu am ca biir yéen a kaay si ay kàngamu politique ñoom nag joxe nañ seen xalaat ci bi nga xam moom lañ bëgg a def ki nga xam ne moom moo di Khalifa Ababacar Sall taxawaay biñ ci am ak taxawaayi Khalifa Sall bi mu am jamono ji ci bopp réew bu Sénégal ñeel politique bi loolee yëpp wax nañ ci ba doyal amul benn point boo xam ne si rek bàyyi nañ ko ca Walf Quotidien yéen a kaay tëll daan na waxumale élection législative yi de waaye élection présidentielle yu 2024 yi sax njiit réew mi Macky Sall ma nga ca aha maa la ko wax de ma ngay xool nan la mën a indee giita ngaas gu metti gu am ci diggante Khalifa Ababacar Sall Karim Meïssa Wade Ousmane Sonko ak Barthélémy Dias bu ànd ñoom ñeenti ñoo ñee si defante gu metti la ñuy xëy di ca yendu yéene kaay bi biral daan na ñeenti ponkal la de baye boo ñu xam seen bopp te kenn duutu leen jàngalati politique gu njiit réew mi Macky Sall Macky nag la mu bëgg suba ba ngoon moom moo di fexe ba jaxase leen ñuy defante seen biir loolu mooy bomb boo xam ne Macky Sall bis bu ko dooree ba gañ ko rek baye boo ñu xam ne élection présidentielle yi moom surprise bu rëy mën na caa am ca diwaanu Pikine Icotaf Les Échos yéene moo xëy di ñu xibaar xibaar bu doy waar benn xale bu góor boo xam ne si étudiant la moom moo xaru lan maa la ko wax de waaye ba muy xaru xaruwul noonu simplement de daa bind ab bataaxal bu rëy bàyyi leen ko fa iti jaaba bokk na ca lam bind ca leetar ba nee na àdduna bii nga xam ne moom la nekkoon di ci dund da cee doyal sëkk maanaam dund gi si boppam la tàyyi ndax nag loolee li ko ko teg du kenn ku dul baayam bi nga xam ne moo ko sukku jur xale bu góor bi nee na nag dund na ba ni muy faatoo musul am li nga xam ne moom moo di bànneexu baay baay ji tamit dëkk di finaal yaa ji suba ngoon guddeeg bëccëg di dóor ak a saaga ak di ko def lu nekk si kanamam loo xam ne si du métti rek te tegu sama yaay loolee nag moo ma métti ba tax tey ji ma bëgg rey sama bopp maanaam ma bëgg faatu jëf ji nag may jëf xam naa ne dina leen métti de képp koo xam na si xam nga ma wala mu bëgg ma waaye nag na ngeen comprendre na mënatumaa dund si kaw suuf ndax sama baay bi lépp lu métti rek mi ñu koy teg rërrër dëkk bi jaxasoo na de waaye mënoon ngaa muñ rek faatu moom boo koy def mën ngaa toog xar yàlla waaye di rey sa bopp loolu beneen problème la lay jural lii kenn nu ko ba suba